toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. jaajëfal askanu Sénégal Djadjefol, jaajëfal askanu Sénégal ndax ñun yewi Yewwi Askan Wi sant ak gërëm lu doy askanu Sénégal dañoo jóge ci campagne électorale muy eh, ñaareelu campagne électorale bu yewi Askan Wi ci lu toftalu ci lu digënté juroom benn weer lu mu gën a gudd defe naa juróom benni weer la ñu dem ci ci anam yoo xam ne ñoo ngi doon jàmmaarloog ñoo xam ne ay milliards yi milliards yi milliards ci xaalisu réew mi dugal nañ ko ci campagne bi ñun ñu dem ci ci daanaka loxo yi nen defe naa seeni mbokk seeni i naataango journaliste yi àndoon ak ñun gis nañu jafe-jafe yu ñu doon dund ak ñun waaye ànd ak loolu yëpp fépp fu ñu jaar askan wi réserver ñu ab tertu boo xam ne kawe na woon suñu njott lool lool lool te yéen ñëpp senegal yëpp ak àdduna yëpp gis ko nit ñi doon génn doon ay junni junni junni nit di ñu xaar ci naaj bi di ñu xaar ci taw bi di ñu xaar léeg-léeg ba ay deux heures du matin loolu ku mu doyul dara dootu doy ñun mënuñoo remercier lu doy askanu Sénégal waaye di leen wax rek nii yaakaar gi ñu am ci ñun ba tax ñu wane loolu lépp ci cofeel bu soobee yàlla yàgg naa ko wax yaakaar googu du mus tas lépp lu ñu yaakaar ci ñun nañu xam ni suñu ngor suñu bëgg-bëgg ci réew mi weesu na foofu ndax dañ koy faral di wax ñun ñi fi nekk ñëpp kenn dugg ci ci politique ngir koppar goo ciy am wala poñet guñ la ciy jox bu doon loolu dong dong dong ñi ne ci table bi yëpp duñu campagne ndax amul kenn ci ñun koo xam ne tey dina dem assemblée nationale ndax soo nee député rek nit ñaa ngi gis ku ñu jox ndomb tànk jox ko 4-4 jox ko passeport diplomatique jox ko un million 300 par weer jox ko carburant réew mu dool ni Sénégal nag ku ñu jox loolu dafa mel ni am na lu tuuti lu ñu jox wala sax lu takku waye ñi fi tok ñep amul kenn ko xamne day dem assemblée te téwul campagne bi yépp ñoko campagne wër Sénégal yépp di di nelaw 3 h 4 h du matin di lek ben repas par jour campagne nañ ci taw campagne nañ ci naaj campagne nañu ci ngelaw lolu ciofel gi ñu am ci Sénégal ak yene gi ñu am ci Sénégal motax ñu def ko kon gàlla ñu gatché galama askanu Sénégal di leen gërëmaat ci turu conférence des leaders yëpp waye ci turu yewi Askan Wi yëpp militant militante dinaa jaglel nak ngërëm gu spécial jeunesse Sénégal parce que ñun bu ñey commencer politique dafa am lu ñu bëggoon moy fexé ba jeunesse Sénégal intéressé wat ci politique da fexoon nañ ba lo jeune kuy jeune rek ni yow politique dafa euh, euh mbirum mag la beaucoup ko la intéressé te le musiba la ci réew moo 65 pour cent ay ndaw lañu ñun suñu premier objectif moi faire woon ba jeunesse bu nekk di intéressé wu jeune bu nek di intéressé wu ci politique ndax politique moi, ni ko tubaab bi waxee rek mooy li xew ci sa sa jamono ak sa sa société nga faire ba sa loxo nek ci lépp lu koy defar nga bekk nga fekkee ko c'est l'art de de la gérer la société C'est ce politique Ce leen mësa du politique Nakh nit ñi sàcc mi jënd ay militants politique dige loo def est du politique Nous, ñun Yewi askan contrat moral bi ñu bëgg a politique ndax yonent sax politique politique politique politique ndax yonent samp na état nekk président de la république loolu mooy mooy mooy politique mooy defar société bi mais li ñu leen di won du politique de balaa may dee ñu naan diw c'est un génie politique parce que mën naa wax lu dul dëgg mën naa naxaate mën naa sàcc alalu réew mi mën naa sàcc ay élection ñu ne ah waa ji de c'est un génie politique ay nit di ko bind sax naan génie politique déedéet génie politique mooy fexe ba buñ la wóoloo ba dénk la nga liggéey ba askan wi gis gis boppam ci liggéey bi nit ñi am liggéey nit ñi faju nit ñi di lekk correctement ak yeneen ak yeneen loolu mooy génie politique boo gisee américains yi jël seeni présidents yu mag yi ay Lincoln ay truc di leen teg fu sori parce que ñooñu dañoo def loo xam ne ba léegi ñoom ñi ngi jeexital bi ci liggéey bi waaye njuuj njaaj rek ñu naan waa ji moo ay ci politique waa ji politicien la ñun nde suñuy doom ak suñuy set dañoo bëgg ñu am beneen image ci politicien mooy kuy defar

2017 127 députés la ñu amoon ci 165 127 députés su ma koy xayma ci wolof mooy téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar ci téeméer ci soo dajalee député yëpp téeméer ak juróom fukk juróom benn fukk ak juróom ñoom lool loolu la ñu amoon ñenn ñi nga xam ne nañu assemblée ci beneen anam ne ay indépendant lañu di rocce ko benn benn di dem di leen fekk ba daanaka bi mandat bi di jeex nii gëm naa ni waroon nañu mat ñoom 140 députés soo seetee non non inscrit yi dem demoon fekki leen kenn xamul nu mu toll. donc ku yoroon lu toll noonu ci assemblée bi ñu génn tey ngay xeex naan am naa 82 wala aw ma ko ndax pour am majorité 83 nga war a am kon élection bi ñàkk nañ ko ba noppi ak lu munti am kon ñun ñu ngi sant yàlla gërëm askanu Sénégal. ndax bi ñuy sumb élection bi kenn jàppaloon ni dina demee noonu d'autant que nag ni gën a yeme ci mbir mi mooy équipe bee moo leen duma remplaçant moo leen duma ndax ba tey jii sénégalais yu bari soo leen ne kan tête de liste bi officielle bi ñu bëri xamuñu ko équipe bee moo leen duma kon équipe A bu compétiroon fu ñu jëm loolu moo doy waar ci mbir mi mun ñu ngi dellu sant yàlla bu baax

noonu la amee ci Bounkiling nga xam ne ñoom waa Yewwi suñu juumul woon dem voteel Wallu ni ko waroon defee ñoom ñi ngi am écart u 700 voix te ñi voteel Yewwi foofu te waroon voteel Wallu 900 lañu kon bu bu bu amuloon incompréhension yooyu ci ñenn ñi tey fii ñu toog di wax sax naan est-ce que majorité am na wala déet kenn du ko wax kon ñoom daanuwuñu dañu xalangu bay mbërëngu loolu moo am kon lan motax sénégalais yi votel yewi ak wàllu ak lan motax ñu sanctionné len lool dafa bax ñu rappeler ko parce que vote bu nek dafa wara am explication de vote dañu wara xam li tax li am néew dama nek ci bop sénégalais bu ne waye ñun pendant 14 jours wër nañu Sénégal dafa am discours bu ñu tenir Sénégal discours bobu dafa am première partie déconstruire et deuxième partie proposer lan la construire déconstruire moy un nañu sénégalais yi Macky Sall depuis at ak benn mi ngi ci Sénégal lan bilan Macky Sall bu ñu complot pour liquider des gens joxé ay instructions ñu rey ay nit ci ay manifestations lan bilan Macky Sall mooy yàq justice bi yaxeet ba tey amul benn sénégalais bu naw justice Sénégal lan mooy bilan makisal mooy dund gi cher na ba sénégalais fi mu ne nii sonn nañu sonn goo xam ne kenn mënu ko wax lu doon jar fukk tey mu ngay jar ñaar fukk wala ñaar fukk ak juróom lan mooy bilan sénégalais makisal Sall du mooy faju jafe na ci réew mi faju jafe na ci réew mi non seulement cher na mais jafe na ci réew mi lan moy bilan sénégalais ma Macky Sall du moins moy njàng mi sooxe na ci anam go xamné ne maar lan moy bilan Macky Sall moy liggéey amul ci réew mi rawatina ndaw ñi chômage endémique ñi génn chaque année ci marché du travail moins d'un dixième ñom ñoy mëna am insertion pour am liggéey ñi ci dess ñep suñu dawalul Jakarta ñinga tok ci grand place lan moy bilan Macky Sall moy liñu yalla yàlla ci ay ressources ay richesses nga xam mom lañu la nak japp ndax yalla bu la tàccoo comme niñ koy waxé nga sàggan ba keneen ñew fecc ko yalla jox ñu pétrole jox ñu gaz jox ñu zircon jox ñu phosphate jox ñu géej go xam ne lu tee nga gis Macky Sall jël yépp jaay ko tubaab bi toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne.